keneen ku leen di waxit te laabiire leen te njaru leen loolu leen di wax mooy topp ndigali suñu borom yi wattandiku ko tereem yi wattu juróom-ñaari cër yi nga xam ne ay ndénkaan la te bu ci nekk daañu ko laaj ëllëg lu mu jëfe ak fu mu jaar wëllëre lu ñuy laaj la ëllëg wëllërew yàlla ak jaama ci rawati doomu aadama dafa war a dimbandiku ci fàttaliku dee lu fi dee yàgg-yàgg lu mu bari bari luñ ci dëkk dëkk nit day delloo ci xelam di teewlu bisam di teewlu waxtu sukkuraatam di teewlu génn ko ruuxam di teewlu dugg bàmmeel ak sax gu yàgg ga fa doomu aadamay sax di teewlu xisaab bu taxawee ci kanam yàlla ëllëg ñu laaj ko lépp lu mu defoon fàttaliku tiitum bis penc ba di fàttaliku jéggi siraat ak waru adduna adduna day ware ku fi mas a jaar jéem na laa war mu man ko wala mu tële ko jikkooma du ko bàyyi mukk te day gën a yokk adduna lu fi nekk luy ware la luy ware la tey ak ëllëg lanu mel na lu ñu jege daf nu koo soril ba suñ xel du ci dem li ñu sant mu tàyyelal suñuy cër ba duñ ci sawar lan war a bëgg muy yàlla ak texeg ëllëg mu dina ko fàttaloo fu ñu toll ndax dina won rafet rafet yoo xam ne du rafet rafet ci dara du yàgg du sax te mu fi ba lay indil nit kii